asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 2 janvier 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey sunu làmb fa la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi nag tey ginnaaw bi yàlla defee nag mille 2019 jeex 2020 daal di dugg tey ñu nekk ci ñaareelu fan ba muy tombeek arxemes jàppal sunu làmb nag li ñuy xaar wala loo xam ne boog mënees naa am yaakaar ndax dina am ci saison 2020 bii nga xam ne nii wala atum 2020 bi nu dugg loolu la yëglikaay bi xëy tey la ca njëkk ñu ko mooy diggante Modou Lo ak nga xam ne taxaw na yëglikaay bay laaj ndax bokk na ci yoo xam ne nii mënees na koo xaar ndax ak amam loolu itam ñëw na ca ak loo xam ne nii tamit jàpp na ne daal loo xam ne tamit ñu ngi xaar ndax dana am wala du am mooy diggante Balla gay numéro 2 ak ki nga xam ne moo di Boy Niang waaye diggante Eumeu seen ak ki nga xam ne nii moo di Bombardier ak itam toogaatoog alin Sarr continue di jiite li nga xam ne nii moo di làmb ji ak ki nga xam ne nii tamit moom moo di Gris doo ndax moom itam ren dina wàcc ci làmb ji tooyal ngembam ak ki nga xam ne nii moom moo di ki nga xam ne moom mooy Gaston Mbeng ak dikkaatam ak it Pa Abdou Fall ndax fexe ba Tapha Tine mi mu wutal ko adversaire boo xam ne nii moom la war a jàmmaar lool ak ka nga xam ne moo di Papa Sow ginnaaw ko génnee Fass ñu ngi xaar tamit ab bu bees mu kerye ko ak keneen koo xam tamit bopp ba tey dafet moom amagu ko ci làmb ji muy muy ay mbir yoo xam ne daal yëglikaay bi tey daa xëy ñëw ne 2020 bii nga xam ne nag moom la ñu dugg yooyu moom bokk na ci yoo xam ne nii mënees na koo wax wala ñu koy koy xaar keneen koo xam ne mu moom la ko làmb ji defal ba am lu mu ko jural tey mu ngi xëy di ko wax mu di doomu Espagne ñu koy wax xowaan daan bëri fii ci làmbi réew mi xowaan nag moom yëglikaay bi daal xëy na tey séq ak moom waxtaan wu yaatoo yaatu nee na daal moom dina gañe lu toll ci cinq cent million maanaam juróomi téeméeri million ci benn combat lay gañe fi mu nekk nii ca la nga xam ne nii moom lay def mu mel ni kon moom mu nga ca MMA ba loolu moom wax na ko waaye nag terewul làmbi Sénégal ba tey mu ngay wax ay bëgg-bëggam ci dajeek ñi nga xam ne nii ñoo fi nekk di ay mbër bokk na ca Bombardier Modou Lo wala Eumeu Sène xawaan daal teg na ñooñu bët ngir nag képp ku ko ci may chance daal wala képp ku ci nangu daje ak moom ngeen defante ko nee tamit maanaam làmb ji moom ah du ko balaame de ndax nag li ko làmb ji apporter bëri na lim ko jariñ ndax nag tax na àddina bi xam ko ba tax tey mu yegg foo xam ne nii daal ah moom daal amal na ko njëriñ bu baax a baax a waaye tamit ku mel ni rëg-rëg moom nee na fi mu nekk ni moom bëgg na koo sax jàppale ci MMA bi ak ñeen ñoo xam ne sax jàpp na ne war nañoo mën a nekk ay champion ci bi gis na ne tamit war na mën a def carrière bu yaatoo yaat ci li nga xam ne moo di MMA bi loolu mooy wax ki nga xam ne ni moo di xawaan mu mel ni ki daal tey moom itam xëy na ngardaaju yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb waaye li nga xam ne nii nag moo amoon dem fa nga xam ne mooy ci arène nationale muy combat bu njëkk ci atum 2020 bi ka nga xam ne moo doon Mori Cargo waroon ko seeq ki nga xam ne mooy seeq super jamono combat ba nag arbitre ba mujj ko soufflé le te la ko waral lenn dong la ka nga xam ne nag moo di ki nga xam ne mooy seeq super jamono daal moo jël béjjën jam ko boppam muy naaj loolu nag moom la ko médecin ba ne lii daal mën ñu ne ko lool mënta ne daal di yëkkati loxo ki nga xam ne nii moo di Mori Cargo ba sàkku xam-xam mu yóbbu ndam la fa nga xam ne nii moo di ca parcelle yëglikaay bi ñëw na tey wax nu ko waaye leneen loo xam ne tamit gis nañ ko fi nga xam ne moo di la muy mbiri Eumeu Sène yoo xam ne daal ñu ngi cay wax yëglikaay bi xëy tey ñëw wax ci waaye loo xam ne mën ngeen koo xaar ca Leewtoo TV mu di ab vidéo di ab jàkkaarloo boo xam ne démb wala signature contrat Fallou Ndiaye ko fa nga xam ne moo doon ca kuunun doxoon ci diggante ki nga xam ne moo di aada fas ak bébé bis mi ñoom nag ñoo war a jàkkaarloo la onze daal di defante ca stadium Iba Mar Diop mel na ki daal foofu moom tàngoon na jër ak ay combat yoo xam ne mu nga ca biir moo xam Ahmed Lagros la ak Ahmed Lo ma nga xam ne nii mooy doomi Modou Lo mu mel ni ki daal kon Fallou Ndiaye moom làmbam jooja mu ngi ñëw di yoot ndànk di ñëw waaye loo ci mën a dégg itam daal jàppal di samedi ji nu jëm moom idaali ñi ngay ñëw ci diggante ki nga xam ne moo di agogo ak Nokia mel ni ki daal kon gaa yi moom xaaruñu waaye itam am na leneen loo xam ne waras na koo xaar muy drapeau ki nga xam ne nii moom moo di Matar Ba di ministre de sports dina juróomi millions yoo xam ne daal promoteurs yi ñoo ko ko tegal fa nga xam ne moo di ca stadium Iba Mar Diop waaye leneen loo xam ne mu nga ca Leewtoo TV muy ko ko jox jaarale ko fa nga xam ne ni mooy ca ministre ba yor muy Matar Ba ki nga xam ne mooy Manga de des arènes ak ki nga xam ne moo jiite làmb ji di docteur Aline Sarr mu mel ni ki tamit loolu mu nga fa waaye leneen loo xam ne wala keneen koo xam ne moom mu nga ba Angleterre xëy yoor xerab di ko dóor wala ña muy waxal ka ca jëkk mooy Modou Anta maam la mu mag ma ngeen xam nee na daal kii nga xam ne moo di Modou Anta moom ragal la bàkkaar la te bu ñimee na lekk sama avance moo xam moom la moo xam rëg-rëg la wala bàyyi ma njoon sam waaja daal wala boog Modou ki nga xam ne daal moo di maam Balla daal lii la wax gaay nee na ku ci amu fit daal jëlal sama avance rëg-rëg moom jamono jooja ñu ngi koy wax waxi Malick Niang waaye yëglikaay bi ne daal la mu laaj ci xaalis moom foo ko takk weesu na ko d'accord na de waaye daal nee na moom xaalis bu baree baree baree bari lañ koy tegal ci taabal ngir mu mën a sëgg bëri ak Malick Niang waaye li jarañaan moom ci at mii nu ne muy 2020 tey di ñaari fan 2 janvier mooy daal yàlla na Sénégal am jàmm jàmm ji fi amoon 2019 ji fi am ci 2020 bi yàlla na ko dàq te ëpp ko te gën koo yaatu lépp ànd ak mucc ak xéwal ak fekkeek tal nag ndax nag loo fekke lu ne tal ko da cay baax kon yàlla na ñuy fekke tey tal di wér tey wérle di man tey def yomb na borom bi te àttan na ko te at sañ na ko yàlla nañ ko defal ndax nag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 te lu ci waay ragal yàlla boo ko gis lu ci nit amoon soxla tamit itte mu tëwoon a euh, maanaam décanté wu yàlla na yàlla def mu décanté wu ñi amul soxna yàlla nañ ko am ñi amul boroom kër noonu xam nga ñi nga xam dañoo wéral di yàlla na leen yàlla wéral ñi ne ci kaso yi tamit yàlla na leen yàlla génne ba dellu si leen te teg leen ci yoonu njub ak fu waay mën a nekk daal am problème yàlla na ko yàlla saafara ci deux minutes barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Amin baaba Babacar deg naa grand théâtre nga fa de. waaw non grand théâtre mën ta ñàkk xam nga nag àddina moo baaxoo loolu loolu loolu ci dundu la bokk parce que tamit xam nga mënoo kaase sa bopp rek ci benn rythme loolu moom Babacar xam nga man boo gisee yooyu ma ciy faral di dem benn waali moom xam na ne soppeem la moom xam na loolu xaw nañ wax ci loolu leneen li ci des tamit mooy man dama yor micro di wax. yaa ngi dégg damay bëgg am yoo xam dama koy fekkee parce que bu wax jotee maa teew maa fekkee ba kan lay laaj waaye nag ah faramarin bi Wally Seck laaw la cat de waaw doy na waar de. kon boog baax na ñëw ak yéen si euh, jàngatu arène bi ak sunu laam sunu lamb mag moom dafa xëy laaj ay laaj yu bëre naan est-ce que année bi ni Modou Lo ak Ama Baldé dina am ki si mel ni aussi Balla Gaye ak Boy Niang aussi est-ce que dina am nee ñu que daañu combat revanche ak Bombardier que amateurs yi aussi dañ ko gis euh, nee ñu aussi est-ce que dina bëre ren te du daanu Babacar question daal la sunu lamb laaj tey xëy. wax li am solo daal mooy Ama Baldé Modou moom ñu ngi ñaan yàlla mu am ñun. waaw bu fekkente ne lu ñu mën a wax la ñu ngi ñaan mu am te yaakaar nañ ne dina am di ñaan ki ko tëgg yàlla na ko yàlla génn ci li mu ne muy lig Nicolas ba combat bu mën a am Ama ba Boy Niang ak euh, Balla nag ah ñu ngi ñaan it mu am parce que comme nit ñi bëgg nañ ko te ñaari mbër yi ku ci ne boo déggee kàddoom pare nañu ñoom tam pour bëree loolu tamit kon ñu ngi ñaan mu am yaa ngi dégg su amul itam terewul beneen combat mën na ñoom ñaar ku ci ne am beneen adversaire Eumeu Sène Bombardier tamit comme li ñu wax rek yaakaar naa moom itam ah ci li ñu ci li ñu for ci wu bëy ak loo xam ne sa nangoon nañ ko ci ki yore booma jëmuy Max Mbargane xam naa du ñàkk dañ seetaan vidéo bi ci Leewtoo TV foofu itam ba mën naa mu taxaw rëg-rëg ndax dina daanu wala du daanu ah loolu moom xam naa ne daanu moom du ko bëgg a dégg waaw du ko bëgg a dégg waaye comme dafa amagul xëy na moo tax yëglikaay bi sax boobu laaj ndax 2020 mi est-ce que loolu mën na cee am loolu nag dañuy yónni yàgg déglu ko ba xam ndax mu nekkoon wala luy xew journaliste bi mi ngi laaj ne kii di Alioune Sarr président CNG nga xam depuis 1992 mi ngi fi nee ñu est dina remplir mandat wala si at saison bi jeexee ah, ba tey li ma la wax na yónni a jafe parce que moom dañ ko dénk pour ñaari at ñaari atam yaakaar na yaa ngi dégg saison bi lay jeex loolu tamit dañuy bàyyi ba ñaari at yi mat ba xam ndax dafiy jaare nag bàyyi définitivement wala dañ koy renouveler waat confiance bi jox ko mu continuer parce que lu mu ci mën a doon rek dañuy lu ci am moom si kàttan suñ borom dinañ ko fekke euh, Babacar journal bi tey dafa génne kenn koo xam ni amateur yi namm nañ ko sopp nañ ko euh, yàgg nañ ko gis tamit euh, muy kii di xam ni mooy Juan nu koy woowee le sorcier blanc moom daal mi ngi ñëw di wax si lan lay si lan la nekk ak aussi nee na xam na làmb Sénégal lu ma ko apporté lu bëre bëri si carrière nee na daal fi mu nekk di bëre MMA mi ngi gagné plus de téeméeri million Babacar loolu bëri na de. cinq cent millions juróomi téeméeri million waaw ah, cent million mooy téeméeri million mu mel ni kon moom xaaju milliard lay gagné par combat loolu dinday ku ma ku ko am ci MMA bi moom di di di nga naqaree tee de xawaat mi nekkoon fii daan bëri jot na fee bëri ay combat léegi nag mu ngi États-Unis euh, yaakaar naa si club yi fa fa lañ ko recruter muy parce que nag day kumba faal 500 millions boo ko amoon xalaat naa bu subaa bu la cales ne xëysil di nga ko defal ndànk damay jël soo ko amoon del ak yaay waaw non ak yaay moom lépp lu ma am fa laa ko jëmee ndax foo fekk baax baax fekk la fa parce que mooy sama Paris mooy sama màkkatal mu karama mooy sama Touba mooy sama lépp ak yaay fa dëkk di di ñëw di di nuyu waa ak yaay waaye xawaan daal li am solo mooy mu ngi ci sport am di ko def tamit vraiment xëy na wax waxtaan wu am solo ko ci MMA bi et puis rëg-rëg tamit jàpp na ne bu ci continuer mën na ci am lu lu kawe njootam te loolu tamit dëgg la parce que ku ne xam na ne athlète bu mag a mag la actuellement léegi li ci des mooy tamit xarabu làmb ji ndax xam na ni ko làmb defal ma ne ko nag gore nga loolu tamit mooy yëfi gor waaye lekk ci ndab li ba suur jël si suuf rek sotti ko ci dem sa yoon ah yooyu dadul wóor kon xawaan dellu na njukkal làmb ji lii mu def itam ñun ñu nekk ci làmb ji yëpp te ku ci ne am na lu la làmb apporteel war ngay delloo làmb ji njukkal parce que tey moom buñ ko xamee à travers le monde ba mu ñëw tey bay dem bay jongante ay combat wu téeméeri ay juróomi téeméeri million làmb moo ubbi bunt boobu kon nag nit ku ne sa jaar-jaar dee ko fàttaliku dafa am solo waaye rek regg tey rek fàtte ni démb xiifoon nga wala nga lekk tey ginaar fàtte ka la doon jox démb ay laax ki sumbee ki fonde ah man yaakaar naa loolu daal dugg fi gor daal pour man Babacar journal bi tamit ñëw na si li nga xam ne mooy combat bi nga xam ne mi ngi ni ngi koy ni ngi koy négocier diggante Reug Reug ak euh, ki nga xam ne mooy Malick Niang nee nañu daal quand war Reug Reug d'accord na mais daal xaalis bu bëri laaj mën a jox euh, chance ki nga xam ne mi mooy mooy Malick Niang waaw loolu day war na mën a nekk combat la de bu neex a neex a neex diggante Yoff ak Caaroy ah jongante lébu lay doon wala dër bi lébu muy combat boo xam ne war na mën a am Reug Reug nag ah bëre moom comme li ñu la wax rek marchandise la damay jaay da ngay jënd lii lañ may fay lii laa mën a fay loolu moo fay am ñu ngi ñaan nag bu dee ñu ngi koy dox ba lu mel ba kaam nangu nañ yàlla nañu déggu ak promoteur bi bi ko bëgg ba combat bi tax ndax Malick Niang it amateur yi namm nañ ko ba ko Ama Baldé daanee ba tey wàccaatul ci làmb ji rëg-rëg nag depuis moom boobu ba tey ah mu ngi compétir si lutte avec frappe bi di compétir si mbapat yi waaye combat boo xam ne daal bu neex a neex a neex la waaw journal bi aussi mu ngi xam ne kii di Ouzin production dina def tey dina jàkkaarloo ak journaliste yi fee si euh, marché jeudi si Guédiawaye Babacar. waaw Ouzin production di ko bees moom it ci làmb parce que jot nañu waxtaan waaye daal xam naa ay bëgg-bëggam moom bëgg nañu itam indi partition ci mbir mi. waaw loolu tamit ñu koy souhaité mu dal ak jàmm di wax ne rek ñun comme li ñuy wax rek promoteur yëpp. lay concerné bu ñu sañoon bépp promoteur bu jël weccatam dugal ko si làmb danañ si am bénéfice ba tax làmb ji mën di jëm kanam di ci profité daal di ko ñaanal yàlla Ouzin production structure bu bees boobu yàlla na yegg si bi rahmaan rahim et puis tamit bu ñëwee li mu séntu ci biir làmb yàlla na ko ci gis suñu jógee nag suñu laam nañ dem fi nga xam ne mooy tribune tribune moom dafa xëy samp laaj ne kii di Eumeu Sène est-ce que kaawam critique wul parce que na couronne bi yëpp mooy jëlaat couronne roi des arènes mais balaa waaw couronne mën na critique mën na bañ a ah. parce que lu tax mën na bañ a critique mooy que sportif la sportif nag yaakaar naa ne défaite match la victoire moo nekk ci résultat bi leneen amu fa kon yaakaar naa ne li ko war mooy mu amaat combat jongante ko xam nga couronne roi des arènes moom warul du warul nekk li nga xam ne nii pour man moom rek moo la war a tënk non non non parce que couronne bi kenn ko mën a yor te itam kenn kooku ñëpp mënuñoo jàkkaarloog moom moo si benn tàkkusaan bëri ak moom kon day am kuy am sens bu bëri ak moom yow nga am sens bu am beneen combat kon combat ba nga am lijjanti ko mooy gën a wóor mais Eumeu itam yaakaar naa tey amatul ci làmb lu muy prouver par rapport ak bi mu commencé carrière am ba tey ku amul hygiène de vie mënoo am boobu longévité carrière kon yaakaar naa ne dafa jara jaaraamaal moom Eumeu Sène parce que itam am na mbir yu bëri yu mu maasal na jamono waaye ñoo xam ne sax moo leen mag ci làmb te tey yaakaar naa ne boo leen xoolee la yàq seen carrière bokk na ci ci ci maanaam ci ñoom la jóge moom nag yàlla dimbali na ko mu sàmm carrière am ba tey mu yegg si fii ba presque jege na retraite kon dama naan amatul lu muy prouvé ba kaam di inquiété kenn pour man waaw kooka nag si kàddu yoon leen tàggoo di la jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mais soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane ni déjà Barama Chéri Khadija Diallo euh, ki nga xam ne mooy As Seck Chéri Khoucha Seck depuis Italie nuyu ki nga xam ne mooy Mbaye Seye depuis la France nuyu euh, ki nga xam ne mooy Abdou Gueye euh, Papa Sita Baye Fallou Diamagane depuis les États-Unis aussi maa ngi di ko jox wàccu waayam di nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya musa ak Bébé Fall ñi xam ne ñoom la nekk vacances fan yii nii di nuyu ñu euh, waa Parcelles Assainies euh, unité di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp ak comme ni ko waxee rek di nuyu tamit waa Parcelles 1 ba 26 waa Pikine waa Guédiawaye waa Sénégal yëpp la ñuy wax sax parce ku lim juum wala doo matal kon ñu ngi nuyu ñëpp ku mu mën a doon rek ñu ngi lay nuyu à travers le monde tamit ñu ni ci àddina bi dañu que nday gumba comme li ma waxoon kere euh, laay waxaat rek ñu amee doole rek wala ñu ñemee sax ñi ñuy seetaan la di ñu jàppale parce que ñu ngi seetaan di bind ay commentaire di ñu des fois ñu ne ñu jubanti leen lii lii baax na lii baaxul te ku leen a sangul nag sab taar la bëgg kon ñoom ñëpp mention spéciale ñoom ñëpp ñuy siifar fu ñu mën a ne si àddina bi rek maa leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal xéwal di leen ñaanal mucc di ko ñaanal bépp doomu aadama mais itam di ñaanal suñu xalifa général yi di ci jiital sëriñ Muntaxa Mbàkke sëriñ Babacar Mansour ak maam Abdoulaye Thiaw fii ci Yoff waa Kunti waa Ñaseen xam nga waa jàngu bi waa taaleen fu ci kilifa diine ci Sénégal ñu ngi lay ñaanal yàlla na yàlla guddal saw fan wéral sa ay cër ngeen yàggu ñoo digal ñu yàgg jëfe ndax nag ah olof da koo wax dafa am loo xam ne nii boo ko amee ci am réew te ñu bëri baroon ko am te amuñu ko te yàlla may la ko loolu da koy sàmm te fonk leen kon kilifa diine yi tey man daal ci 2000 bi itam bi nga xam ne moom lañ ko jaglan kër final ku ne xam ne diggante ak maître Pape mu ngoon kër sama dëkk mu ngoon Ndondol bëggal waa population ba kon Kouthia tamit ñu ngi lay bëgg di kontaan ci yow di wax daal que ni Ndeye Coumba yàlla na jàmm yàgg Sénégal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais jàmm ci àddina bi yépp nag. amin Babacar ba suba incha